waaw maa leen fay waaw waaw maa ngi nuyu ñëpp vraiment di delloo njukkal di ñaan réew mi jàmm sax fii lool di fi yàgg parce que loolu lañu xam ñun loolu lañu am donc nag maa ngi nuyu Sénégalais yëpp ku nekk sutura sant man U2. waaw fans numéro un number one ndax su moom euh, li yëpp moo ko liggéey dafa liggéey démb tey doo ko ñëw maanaam moom géej la àdduna la te géej lu gaal lu si daw moo ko way donc wër na àdduna dem na fu ne.